Euh, man la Biram nekk bergerie gi Diourgui jur gi mu ngi nekk Thiès ci benn village bu ñuy wax pour Diak après nooto non non lii mooy suñu troisième fois euh, ci Saladam bi ñu new Saladam. par rapport ak suñu première euh, ñëw fii am na am na différence bu rëy parce que première fois bi bi ñuy ñëw ay xar yoo xam ne dañ ko recruter la ñu indi woon tey nag donc yàlla def na bi ñuy ñëw ci dernière kii bi nii tey. mu nekk loo xam ne tey li ñu indi yëpp ci bergerie ba lañ ko kiwee ay suñu production la waaw muy lépp loo fi gis tey suñu production la ñu ñoo ko ñoo ko juddule euh, yor nañu lignée magistrat bi ñu ngi ci lignée yor lignée ki nga xam ne moo du kii bi saalum Saloum bi aussi mu ngi fa ak euh, yeneen lignée yu bëri daal ñoo nga fa Abdou Fall sans Abdou Fall beeg yëpp a nga fa dem kaasu boobu dafa nekk euh, tey boo gisee ñu dem recruter ko indi ko parce que ñun dañoo nekk ñoo xam ne saawu Saloum bi daa nekk loo xam ne daf ñoo neex et puis dañoo gis li muy def ci xar maanaam day changé bergerie bu mu dugg daal dafay changé lu bëri waaw. non si daan ñu ngi xaar foofu ay femelles yu extraordinaire. ndax dañoo liggéey ba kàmm gi bëgg a maase ñu bëgg koo yëkkati ca kaw a kaw moo tax ñu dugal si danta waaw mais gis na temps bi nga ko bépp bokk na ci bergerie bi jaar na fa wala sëtam jaar mën naa la cee limal maal yi nga dégg ni ñooy def bës ci foire bi yëpp benn ci Eden Diourbi benn ci bi ñu joge nii bi ñu jaay Thiès nu mu tuddati océan océan Touba boo xam ni marqué na empreinte si ñu wax yow nii ci salon bii nga xam ne 2023 sala dam ak kiñ lébu bii nga xam ni doom la ci euh, greffier mhm. greffier di doom ci bâtonnier bâtonnier di doom ci magistrat magistrat di doom ci Cheikh Diop tay ñu ñëwaat dugg ci salum bi muy mal bo xam li ñu soxla ci élevage mi ngi koy def doom yu dijj bop yu dam ba noppi ngand muy Erdogan Erdogan fils de Picasso Picasso kenn dootu ko lacc ci diiru salum bi ndax yépp baax nañ waaye moo ca gën kon lu mu ca jur moo gën moo tax ñu jël loolu maasale kàmb gi nag di toog di xaar ñun daal ñàkk ñoo ñam wóor ku ñu ñam koo xam di nga ko indi tey jeexaat foofu rek doom delloo ko sa loxo edem jur du ay caaxaan la ab ferme la du ay box du ñaari box du ñetti box 30 hectares ñun liggé ñu ñor ay ndaw lañ ñu di waxtaan di diisoo du ñu waxaale yow ba ngay bëgg dé té luñ la jox bu ci yalla défé jam dana barkel di jox rendez-vous ñëpp rek ko xamni ni la nga say déem ak say Dakar dugg ci élevage ñong lay talal loxo ndax Eden jur gi mom patron di xalé la muy xalé bo xamni ne yéene ni ñëpp jam ay ndaw nefa ku nekk di ci sa bop man mi ci dawal bi la nekkon dama saaroon génn saaku yi indi wat ci kaw APA ak man ñeneen ak ñeneen ñeneen mën naa koo lim te waxuma mur lu la neex waxuma pour émission bi tey soo ñëwoon di xam ne boo naa ci dawal juróomi xar la ma joxandoo ci benn semaine benn bi ma bañ naa ci onze millions benn bi waaw ak ñeneen ñoo xam ne sama bopp laa xam ak ñeneen ñu ma fekk kii nag moo fa nekk di xale di biram di ku bëgg xari boo ñëwee ligne bu ne mën naa laa wax ko ko jur ak même juddoo ak aas ba am ak ñaata pot té du la ko wax mukk nga diko xol ci archive nan boy bi bet ñoo ñooñu and ak mom dipp ñu commencé sun élevage ba léegi ñi ngi ñaan yalla bayyi ñok mom ba fi ñu toll mu toll fu ko raw moom it eden jur gi daal duy caaxaan route de pour jaj boy la té eden dir gi xol 5000 mille bleu yi fekk fa xana di di len centre rek di leen gërëm et puis ki tam wax wax jo xamne tay amna bax bu muy wax nonu japp na ne ci ñom la nekk parce que peut-être mën na am ànd boo gis daal day am day tollu moment boo xam ne mën ngaa def loo xam ne war na mën a tax ki nga nekkal découragé mais moom nekk na nit koo xam ne baaxam tax na découragement moom mënoo am mënoo koo def ci moom. parce que chaque jour saa boo demee bay découragé gis ci moom leneen lu bees loo xam ne dañ lay permettre nga gën a toog te jàpp naa ne nit ki foo mën a nekk di fa gis say teranga di fa di fa amee jàmm war nga faa toog xaar yàlla ba leneen ba saa boo gisee leneen lu ko. jamono jeexaat sa taamu sa tool bàyyi foo